passeport diplomatique rek. mais xoolal non mais les passeports diplomatiques les voitures et puis même les anciens ministres yi fi nekkoon seen déclaration de patrimoine euh, de sortie anamu. c'est pas ah? de patrimoine le gouvernement de Macky Sall du ko def de. du ah. ñëpp y' a y' a des ministres baa déclaration de patrimoine. de patrimoine Sonko ak euh, Diomaye. Badio Camara. moom deful sa déclaration il a refusé ne defu ko. Mhm. Ah, donc soo Sénégal dafa dafa nekk. Ah. te moom moo ko waroon def ah, moom mi recevoir affaire c'est parce que huit cent millions. imam euh, rapport yi waaw rapport yi mais moom laay wax léegi euh, Pape damay dalal sa xel. Mhm. ci président Ousmane Sonko. Mhm. ak président Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko ak président Diomaye Diop. ñun yaakaar naa damay dañuy junj loo xamante ni dañu foog ni dañu nekk fans club. moo tax ñu koy wax al mujaddid. al du fans club pap al mujaddid mooy ki fekk lu yàqu mu yeesal ko. ba mu jaar fa mu war a jaar. te nag yoon wi da ko wone Nelson Mandela fu mu jógee dugg dugg du gañe réew ma. du ci kaso. bi mu jëlee réew mi jubbantiwul. ah Pape. dafa ah, dafa jubbanti bien sûr jubbanti na. ba pare jubóol teg affaire yi. dem yoonam. président Ousmane Sonko président Diomaye fu ñu jóge prison la ñu ci prison la ñu jóge mhm. prison ku fa jóge rek mhm. xamal nga ni yàlla mu ngi communiquer ak yow mhm. te ku yàlla di communiquer ak yow ragal jëmmi doomu aadama jëmmi doomu aadama dootul fees sa bët yàlla mooy fees sa bët Seydina Ousmane taxaw na biir grand théâtre ñu ñëpp ñu déglu ko mu ne billaahi nga wax xam nga luy billaahi mos doo gis benn njiitum réew ci njiitu réew yi fi jaaroon bu téye alalu réew mi di ci giñ billaahi wallaahi tallaahi mm. amul mm. Ah. am na ci ñoo xam ne kay dañ doon dambati sax alxuraan gi nag mais président Ousmane président Ousmane le premier ministre Ousmane Pape mm-hmm. daf ni billaahi wallaahi wa ku ci lekk dërëm boo moomul da nga ko fay mu teg ca nag. ki nga xamante ne déglu rek sàmba bu bu sa dënn bi rëcc de. saa waay def saa bu mu rëcc de. affaire bi ñëpp a métti quoi. Pape xaaral nee ko bu dënnam rëcc. lan la ci Seydina Ousmane teg bi. Diop <laughs> Seydina Ousmane daf ca teg ni. waxu yonent bi la wax. est-ce que yëg nga ni Ousmane Sonko li ñim njëkk a mooy njabootam. Mm-hmm. ak soxnaam. aki soxnaam. ne leen na ngeen fexe ba lu ngeen di dugg. lu ngeen di wax lu ngeen di jëf bu ma dégg seen lu toll ne tarfatal ay ni ngeen dugg ko ci wàllu état fonctionnement bi bu ci seen yoon nekk bu ma kenn jëlal Diop Taïf ñëw ne la madame madame madame ni ñu koy tuddee ti madame Sonko dama bëggoon a gis Sonko wala dama bëgg a gis premier ministre wala doo ma gis doo ma dimbale ma gis euh, le trois le directeur de cabinet su ay soxnaam ñemewuñ ko dégg nga fi problème première première dame deux mille dix neuf bi Macky Sall faloo mais <laughs> wax ma deux mille dix neuf sax deux mille douze bi mu faloo am na lu njëkk a feeñ première dame. Hmm. loolu dama lay won ni ki yar njabootam ak ki yar boppam. Hmm. ba nga xamante ni yooyu yëpp fekk ko ci mu effacé loolu. Hmm. sëñ Samba bu la loolu jaaxalul pap ci pour ñu mën a lii ñu dëgmal doon ko càmbar ñu xam li ciy dëgg. ñi ci nekkul ci dëgg ñu jaarale leen yoon nee na yonent bi moo ni bu sama doom Fatima sàccoon ñu àtte ko ma xam ne dafa sàcc ma dagg loxoom comme ni ñuy dagg loxo ñëpp Seydina Ousmane wax na ko publiquement ñëpp dégg ko te na référence mooy Seydina Muhammad waaw mu ne bu doomu yonent bi sàccoon mu dagg loxoom mu jël loolu wax ko publiquement kon sàcc yi nañu préparé mhm. amul fu ñuy jaar ba du dagg seen loxo ndax xam nga lan moo doon dox ci diggante bi jamonoy président Macky sàll jamonoy président ab Ablaye wàdd jamonoy président Abdou Diouf dafa am pression bu tegu woon ci seen kaw muy lobby lobby bi ngay wax muy lobby mara maraboutique xam nga lu ko waraloon mooy ni ñoom dañoo amoon quota xamoon ni gouvernement bu ñu ko daan fal ñoom dañuy am quota waaw Serigne Seck Serigne am quota tant qu'ils sont hmm? waaw maa la wax loolu dañuy am quota suuf si ñuy séddale am ci quota lébu yi am quota suuf si ñuy séddale comme ni mu ko waxee ñu am ci quota mais loolu bi ñu faloog léegi gis ngeen kon lu leen di téye. Mhm. beneen bi ci des ñu ngi communiquer ak ñi nga xamante ni jar na ñuy ñoom. muy mhm. njiit yi. Mhm. kilifa yu mag yi. waaw ñu ngi communiquer ak ñoom. lii rapport yi lu ci mënti xew jot nañ ko ñoom. président Ousmane Sonko waaxu na ba ca ñoom sukk wax ak ñoom li xew. xam nga lan lañ ko ci tegal. ku ci jaarul ci dëgg jaarale ko ci yoon donte sama doom la pap ragal jeex na loolu la ko kilifa waaw maa la wax lii ku ci jaarul ci dëgg jaare la ko ci dëgg bu njëkk nag danga daan ñëw ñu ne ruus ma ci seet ma ci wala seet ma ci hmm. te ña la koy wax sax du du kilifa yi jiite hmm. parce que kilifa yi jiite ñoom dañuy fekk nga nekk ci xat-xat ñu génne la ci xat-xat boobu hmm. mën naa ci juñ mën naa ci duut baaraam barki démb xalif général des mourides yàggul 200 millions la joxe. Ah. fu mu ko joxe jëme fii am na fi benn politicien bu rëy boo xamante ni da da dañ ko dañ ko tuumaal ni lekk na 1 milliard 500 millions ci mairie mais boo demee Tivaouane. Mhm. yëkkati nañ som bu bari teg ne nañ ko ko fayale ba pare woo ñi muy àndal na leen dem leen ngeen mottal lii pour mu mat 1 milliard 500 millions ngeen fayal ko. fayal ko kili koo kilifa maa la wax loolu. loolu maa la ko wax man tey. ñaar yii maa la ko tegal kon jiit yooyu ay référence lañ waaye ñeneen ñi indi lëndam mooy ña nekk ci suuf ñooña nag bu ci am bu pap maa la wax ni gis nga réduction des comptes yi ngeen di wax loolu teg nañ ko fële pare na gis nga réduction des comptes autant pour moi loolu pare na noonu la sax que sa soit mhm. muy sàmba mi walla muy paab mi wala muy mami ak foo mënti nekk ak foo mënti juddoo la doon te la doon buum nga doon nga doon euh, miir bi doon protéger loolu miir boobu daanu na xam nga miir ba na fi nekk askan wi dañu taxaw yàkkamti ngir ñu won leen ñi nga xamante ni ñoom la mam yi tudd léegi ñoo doon luubal démb tey ñu bëgg a joggi ci luubal googu nag yilif réew mi yàq réew mi mais ñooña ñàkk leen a feeñal no kooku bu ci xel xalaat ni du am mm. alaa kulli maa ci dëgg sama coñco maa ci dëgg sama tànk moom nee na coñcoom li ci. président kay nee na coñc boobu sax yëkkati nañ ko jomaay du ci dëgg <laughs> amul jomaay sax dëgg ci tànkam moom. Mhm. yarewuñ ko noonu président Ousmane Sonko de même. Mhm. rapport yooyu ngay gis képp ku ci luubal dërëm doonal doomi Sayyiduna Muhammad laa wax de fii ci plateau laa koy waxee Samba ku ci luubal dërëm doonal doomi Sayyiduna Muhammad mhm. wallaay da ko fay. boo ko faylee da nga tëddi kasu te bu dee nag danga bokk ci état hmm. jàppal lii ma la wax tey ne du dañ ni ñu def kii bër ki démb ni ñu ko tuddee Cheikh Cheikh Dieng mi ni ñu ko def hmm. danañ la ko def ba pare danañ la topp danga nga fay kooku moom maa ngi koy dalale sa xel hmm. parce que ñi ñu yàlla dénk dañu nekk ñoo xamante ni duñu ñëwuñu fi pour neexal ma sàmba wala neexal ma demba te nag wax dëgg yàlla nag Ousmane Sonko signal yi mu am yépp nag pour mën a jëfandikoo liy dëgg jëfandikoo liy yoon ci ku mu mënti dal waaye leer na pap ku gagné tuubaa ci élection yi moom ku gagné Tivaouane ci élection yi moom ku gagné Yoff ci élection yi ku gagné Kaolack ci élection yi loolu loolu dafa wone ni foyer religieux yëpp moom dafa wone ni Sénégal jox nañ ko bopp ne ko régler ñu Sénégal ngir guute gi mu duggoon mu génn ko tegu ci siraatal mustaqim alors jo loolu day am incha allah Diop tey yow euh, reddition des comptes ak des actes di nga ci gën a bu ñu ko defee dina nekk loo xam ne vraiment dana gën ci yow ndax yow mbooloo mi la topp li ñuy gën a xaar mooy reddition des comptes et des actes waaw ah waaw comme li ma mi wax rek ak imam fi ñu daanalee parce que yow demande sociale parce que yow prisonnier politique yëpp tey ñu ngi sa gannaaw te li ñuy sàkku mooy vraiment justice ñu leeral ñu leeral affaire yi. non c'est que loolu moom demande sociale la. Mhm. maanaam loolu moom c'est une demande loolu duñ ko jéggale duñ ko baale. Mhm. comme li imam wax président moom leeral na yoon yi. est-ce que yéexaay bi des fois gars yi nekk sa gannaaw duñ lay xaw a sax deg. waaw non gars yi gars yi moom vraiment dëgg la nag. c'est lépp xam la. Mhm. mooy li Mamy Samba insiste moo métti. tooñ gi yàq gi. tong-tong réew mi sédd réew mi def la neex. impunité bi total c'est de l'extrême quoi en fait mm. c'est-à-dire ñii man damaa jàppee golo goo tëj si benn néeg am ay fruits fruits banaana ne fa pomme ne fa rek waaw man loolu laa gis gars ay genre golo lañ rek ñu tëjul ni ci ci <laughs> benn magasin am fruits rek ñuy caxat caxate non c'est di n'importe quoi direction boo dem bi daay soo toogoon ak tonton Waly Diouf Badiane wala Fadilou Keita wallaay wallaay waxate ko wax nga dëgg non nee na nee na Mbodj laa jógee léegi dëgg ministre des sports gis nga bëkki dem ni mu def c'est dafa dafa yéeme. budget sept milliards. pour les pour les sports de haut niveau compétition haut niveau mu war a diire un an. gars yi ñu ko dëddeex bon na <laughs> ci six mois loolu c'est n'importe quoi. ça c'est grave ministre yu ñëwee sept cent vingt la fekk sept cent vingt francs. sept milliards ba sept cent vingt francs. waaw barke Seexul Xadim. ah si bidaay mais loolu dans un pays sérieux loolu nu mu a amee. <laughs> sept milliards pour benn at. sept milliards ñu woote budget sept milliards ci benn at. te te benn ministre la de. benn ministre des sports laa wax. te loolu benn scandale képp la bu fa amee nag. benn scandale du ñaari nit ñoo lekk xaalis. benn moo ko lekk. waaw imagine léegi. si kenn nit. si ca Torobac xam nga dafa ay question ay ki ko lekk mi ngay dossier encore euh, dossier boo xam ne il est pendant kenn rek léew dañ koo gasu lekkuñu ko milliard ah, xam nga milliard tey tey waaye jigéen ñi lañ ko jox kii moom bi sax lépp laay <laughs> gars yi xool gis a yàq gi ñu doon c'est que mooy mu wax gis nga ñii. waxuma la dañ leen wax sax waxuma la <laughs> li muy mais li muy wax nii. mais xoolal 14 milliards yi ñu demee yi woon ci Qatar football ñeenti match. mais Cheikh Thioro loolu la doon wax fan yii xam nga Cheikh Thioro lu <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. bi. ak coupe du monde bi da dañ ci war a enquête càmbar ko. Mm-hmm. parce que dama lay jox rek nga xam ne scandale bi olympique yi bu njëkk. xam nga nday nday nday xat yéen kii ministre des sports. dafa def leen loo xam ne nii wax dëgg yàlla dañ ko war a leer askan nga xam ne ñii dañoon yàq. Mhm. c'est-à-dire n'importe quoi. imaginez yow Jeux olympiques yi ni mu daan demee mooy athlète bu ne dañ lay jox onze millions trois cent mille sa équipement ci bokk prime de ci la bokk prime de euh, prime de participation et tant d'autres. Mhm. onze millions trois cent mille pour athlète de. waaw mooy seen équipement seen lépp prime mhm. moom la def de. donc bi fekkee budget bi. 7 milliards ñu lekk ko ba 700 ba 720 avec euh, l' accompagnement du premier ministre ak euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu fexe ba Sénégal participer ci les Jeux les Jeux de Paris mais gis bi ñu lijjantee loolu ba àll bu ne am 11 millions 300 mille. Mhm. maanaam gis nga 11 millions 300 mille mami maanaam bu njëkk autant ministre bi day bokk ci prime bi. yooyu eh, waay maam bi am 11 millions 300 mille. da su fekkoon démb waaw su fekkoon day am 11 millions 300 mille. yooyu eh, waay loolu doyul de wuy ma loolu doyul de fonctionnaire yi xam ne nii dañoo nekk si direction bi direction ministère bi ña xam ne pour suñ paasu dawuñu bëriwuñu kiiwuñu judo defuñu judo defuñ basket defuñ dara ñoom ci boom laal ña xam ne ay fonctionnaire de l' état lañ dañoo am ay salaire état di leen fay dañuy am prime onze millions trois cent mille ñoom it ah loolu doyul de mami invité yi ña xam ne ministre moo leen invité leen li ma wax ni série série <laughs> maam nga xam ne ministre moo la invité ñoom it dañ leen daan def ay prime te invité yi li gën a de l'argent di contribuable la ñuy xoolal dañu ni loger ba pare nourrir leen ci xaalis Sénégal. waaw mhm. hmm? ah. mais mais imaginez 7 milliards. 7 milliards du jaaxal juróom-ñaari milliards. ñu voté la ko pour atu yàlla. nga ne ko dëxëñ lekk ci 6 mois. ba 720 francs des. ba ah, des. mais xoolal CAN bi Côte d'Ivoire. léegi ñii ñii ñan ñoo nekkoon ci délégation. ñii waxuma la ay mbër rek la ñu yóbbuwoon ay mbër. dama lay wax ko je n'ai rien contre les a garaaw. Maguette Sène dafa jël conseil gis eh. xam ne Diomaye sax amul président Diomaye conseil technique bi mais est ce que mën nañ seet sax. conseil conseil technique. ña xam ne ñoo koy conseil 36 Maguette Sène amoon Maguette Sène bu ko bu ko bu ko dugg. <laughs> man de xaw ma luñ koy conseillé. ñoom ñëpp dañ leen def ay <laughs> chargé de mission yi nag chargé mission yi nekkoon 34. Eh, eh, hey eh, mbay. la <laughs> gis na wala gis na neen Mbodj gis na euh, l' actuel DG. ah jox mi nag amul heure. non lu grand la woon nii non xam nga ni c'est que dafa dafa dafa dafa dafa nekkoon lu habituel si ñun. autant suñu war a ah noonu luy garaawul gars yi ñu ngi lekk leen ñu ngi lekk ay mille milliards ko fi bu jaar na fi. 700 milliards inondation jaar na fi. c'est vrai kon léegi ñii lañ def da nga xam non mais li li gën a garaaw DG yi jaar Abdoulaye Diouf Sarr 2012 ba ba 2024 mboolem DG bu jaar kudd sa carte rapido kenn dagg ko sa crédit téléphone kenn dagg ko minimum daanu coûté minimum chaque mois 500000 ci état bi DG fa jaar ñoom ñëpp de. Hmm? ancien DG yi. ancien DG ñoom dañu doon bénéficié wu ci biir ci kudd de te ñoom nekkutuñ sax DG ok li ñeeñ amoon. yëpp ah mooy comme la amoon RTS rek li li Pape. bañ fa jógee dañ koo conservé. dañ koo conservé. Mhm. est loolu moo am. cey mbay soo ñëw aéroport rek. maam lii dama ne lii si on est a un état sérieux dama ne lii gor waru koo waru koo def pare dund ñi fekkoon ay gor dañoo war faatu fa yàllaaw. il faut la fa am moo gën a garaaw moom. aéroport la fa am aéroport bii nii aéroport moom la gën a. bu am laay Bamba Dieye bi. non <laughs> loolu la fa am la fa am kenn c'est du léegi nag li may wax mooy saa yi ñoom gënuñ ñoo nekk ay Sénégal de. Hmm. ñun bañ ñuy jàpp comme man exemple onze mois dix-sept jours lañ ma jàpp tëj ma ne ma defoo daal dama ñibbi. Hmm. ñoom nag wax dëgg yàlla gënuñoo nekk ay Sénégal. déedéet déedéet. ñoom soo dee criminel